ku fi am soxla ci barke yonent bi ak leeram yal na ko yàlla faj ku fi am lu lay metti ci barke yonent bi ak leeram yal na ko yàlla teggi ku fi am bëgg-bëggu yiw ci barke yonent bi ak leeram yal yàlla jox la ko ku fi am ay njaboot yu yéene jàmm te yéene waale ko sa bopp yal na yàlla jox la la nga yéene njaboot ga te jox la la nga yéene sa bopp yal na yàlla sàmm doom yi sàmm sët yi yal na yàlla sàmm ñu jigéen ñi sàmm ñu góor ñi yal na yàlla def euh, réew mi di réew bu ñi bëgg yiw ñépp di ko fi wut si yal na ko yàlla def ci sunu réew mii mag ñu baax ñi tëdd fi di nu jàngal guddi di jàngal bëccëg yal na fi yàlla def wu dul jeex mukk mukk mukk mukk te ñi fi nekk di ay kilifa ku ci yëg lu war a yàqu su yaboo rek mu defar ko kenn ku ne su bopp ngay defaral la lool rek mooy li am solo waaye ñaaw njort ci yàlla baaxul ñaaw njort ci nit ñi baaxul rafet njort ci yàlla mooy li baax rafet njort ci nit ñi mooy li baax yal na ko yàlla def loolu rek lañ leen di ñaanal di ko ñaanal suñu bopp wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nu jàng fatiha bu sell